la ko jàpp gis nga nengko yi jàpp nañ ko ñu ngi koy dóor noonu jàpp nañ ko jàpp nañ benn militant jàpp nañ benn militant voilà waaw jàpp nañ benn militant gis nga ñu ngi koy nguufaan nguufaan nañ ko loolu mooy nguufaan loolu moom mooy nguufaan ñëwal ñëwal bàyyi li ngay def voilà amis téléspectateurs ñu ngi fi nga ci Médina gis ngeen ni ñu taalee pneu yi ak grenade xale yi estimante bi commencé waat na encore une fois ni ñu koy defee rek waxee saa su nekk rek gis ngeen journaliste yi ñoom it ñoo ngi nii ñoom ñëpp ñoo ngi nii sànq dañoo gaz ni ñëpp te loolu c'est pas normal ba ba tax na tey jilee gis ngeen grenade yi grenade voilà gis ngeen grenade yi moom moo nekk noonu grenade yi donc ñun nag ñu ci ginnaaw manifestant yi ñu ngi ci ginnaaw manifestant gis ngeen ñu ngi teg nii ay xeer donc instant bi nak ñom jamm lañ soxla jamm lañu bëgg donc li lepp dama japp ne bu ñu bàyyi woon Ousmane Sonko mu dem li yëpp du ci am wuyu ji ci ni mu waré bayyi ko mu dem jël yonam kon gëm na ne li lepp du ci am waaye donc li nga gis ni tay ci réew mi gëm na ne tak der yi am nañ ci part de responsabilité waaye tamit li nga xamanté ñu ngi koy tek ci ndoddal Ousmane Sonko aussi am nañ ci part de responsabilité waaw li ma ci li ma ci li ma ci gëna jax mu nit ci sunu owee n'est-ce pas fu la ndax nga wara mëna jaar moy yoon légui man heure bu ma joxoon naa ci heure bu waaye doo ma sàkkal fii laay aw wala fii laa dul jaar mhm, mhm. ba tax looloo indi lii lépp mhm. ndax booy bu leen bàyyi war a ñu ànd ak seen leader dem fi nga xam ne mooy tribunal euh, gazé mu leen lii lépp du am du am du am du am parce que aussi euh, démb loolu lañ nemmeeku fële ca euh, cité kër góor gi kër góor gi mu nekk laa nga xamante vraiment askan bi aussi dañ koy ñaawlu nekkul suñuy wax nag waxu askan bi la donc ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax ndaxte Sonko jël doomam di ko yóbbu pour mu jàngi ñu barricadé foofu yëpp ak ay takk der donc mu nekk la nga xamante ni vraiment euh, askan bi ñaawlu nañ ko bu euh, baax a baax a baax a baax vraiment donc loolu nekkul lu rafet ba sax euh, Sonko ci jëm boppam moom xam lene woon na bu ñu bu takk der yi génnul buntu këram donc du ñëw wuy ji tey jile mhm. donc moom tamit vraiment ànd na ak conscience bañ aussi def la nga xamante ni naka su noonu tax na mu bàyyi loolu lépp dem wuy ji ci njëkk ak teraanga donc bi muy wuy aussi war nañ ko bàyyi mu jaar ci yoon bi nga xamante ni moom la bëgg mais c' est pas dit que dañ ko war a conduire aussi ci yoon bi nga xamante ni voilà daf ko kidnappé uh-huh. euh, déedéet déedéet demewul ni ah, demewul ni demewul ni bu ko Ablaye Wade defoon nii uh-huh. voilà di leen wax ne rek du suñuy wax waxu internet yi la donc damay leeral rek non loolu sax moom moo am du lu ñuy laal la parce que 2012 ni ñëpp uh-huh. la ñu fekk bi bi Macky Sall bi Ablaye Wade di woo Idrissa Seck fekk bi muy woo ki nga xam ne moom mooy Macky Sall fii la ñu fekk. Mm. te euh, loolu lépp li amul ndax Macky Sall bi ko bi ko Ablaye Wade oowee. Mm. dafa daal di euh, dem correctement. ànd ak ñun ñii ci lañ bokkoon. Mm. tey jii ñun ñi nga xam ne ñu gunge kii di Macky Sall en deux mille euh, ci en deux mille neuf. bi ko Ablaye oowee. ba ba jusqu'à présent dara xewul. kon tey jilee yaakaar naa ni bu ñu oowee Ousmane Sonko war ñu koo sàqal fan lay jaar ko askan wi waxee. parce que am réew bu ne bu fii de la teranga Sénégal réewum dal réewum jàmm la Iran boo xoolee Sénégal da nga naan Iran la ak Irak wala Israël wala Ukraine loolu fi nemmeeku ci dimanche bi nga ci image yu reprendre la parce que gëj ko gis ay y a des années voilà donc tey bu ñu demee gisaat ko vraiment vraiment donc doy na waar parce que lii nii je pense que ni euh, gëj na fi am te gis nga sànq dafa mel ni yi dañ doon añ wala ñu doon noppalu dañ doon noppalu ndax sànq gis ngeen tali ni mu libre uh-huh. waaye moment bi ñu toll nii nii xale yi di gën a génnaat uh-huh. commencé waat génnaat ci mbedd yi dafa kuul uh-huh. ba tax na dama yaakaar na dañ doon añ doon jëlaat te te te ma wax la tuuti na yàlla def jàmm rek ci décision euh, juge juge bi ndax tey bu defee safan bi mën naa ne Sénégal dina yëngu bu baax a baax vraiment ndax ci instant bi rek euh, dara amagul euh, mu commencé demee nii donc.

Ah, voilà voilà mbokk yi gis ngeen renfort bi ñëw na booy sa tasaaroo na dugg si dugg si ruq yi euh, évacuer xale yi nga xam ne ñu nekkoon ci kaw euh, tali bi kat ñëw nañ euh, c'est la décision internationale ci gis ngeen tey ci procès Ousmane Sonko Mame Boy Niang voilà voilà gis ngeen gis ngeen gis ngeen yokk renfort bi sécurité bi ak xale yi disparaître nañu dugg ci koñ yi gars yaa ngi dox ànd ak ñoom Kijk, hey, tik op je weg. Voilà. Voilà. gis nga ngi topp ci ginnaaw voilà gis